Réumi 24 TV. dal leen ak jàmm ci xibaar sedi 2 novembre mu mel ne rek des jamono yi ginnaaw bi ñu gàntale mandataire Ousmane Sonko bi fii su parrainage am boobu bañ ko koo jox fii yi xam ne nag li ñu bëgg rek mooy ñii di waa Sénat daal di rek sukkandiku ci code électoral nga xam ne mooy ab fii su kon loolu la xam ne ginnaaw ba nga xamante rek Ousmane Sonko jamono yi daal dinañ koy delloo ci liste électorale kon ñii waa Sénat nga xam ne rek ñoom ñoo féete waa DC kaw jamono yi kon ñoom ña

moom moo nar rek faj euh, dogal bi ndax ñoom kat am nañ droit rek daal di jël fiche parrainage daal di koy jébbal mandataire Ousmane Sonko.